Hmm. xaar ma ñu koor suma nijaay laaj ko ba xam fu mu toll allo suma nijaay jàmm ngeen alhamdulilah ah ah far man ma xoola sax hmm. may seet fu ngeen toll ni mhm. haaye ah kumba kañ la la xool kumba la wax lool xëy àdduna man kay maa ko ko wax ko waxee waxee wu ko ko woon lool waaye kumba lu lu mu lay waxee lool baax na waaw baax na ah fi mu ne jëndatoo waaw baax na déedéet yow xaaral ma kool kumba rek ah bu ma ko ko waa kan baax na waa baax na waa baax na suma nijaay déedéet meruma wax nga dëgg mhm. waa ba si kanam baax na baax na suma nijaay ok bye laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah ah kumba nekkee nii la mel kumba nekkee nii la mel lu ma ko wax mu wax ko sama nijaay muy wax suma nijaay ne bu ma ko xoo fu mu jaar ma xoo allo Kumba mhm. jàmm rek jàmm rek dara la kay yow Kumba yow xëy xaa dina man dee jommi naa billahi doomu Adama Njaay Kumba Kumba ndeke doomu Adama Njaay lu ñu wax ci ñoom rek lu ko rawan ci ñoom waa kumba ñun doomu adama njaay ndeke suñ làmmiñ wi xen bum ñuy xen xalaaxira lañ koy xen xen yow kumba ku la fekk yow li ma la wax noonu nga di ko wax sama nijaay yow kumba ndeke li ngay def sa bopp ne nga maa bugg def sa bopp ne sama doomi de nga yépp nekkete naafeq ak bugguloo déggee si man wax ko suma nijaay moo tax lum ma wax xanaa lan ko wax la ma wax lan wax la ma wax yow moos li ma la wax ne la suma suma nijaay ndax ndax bu xawee si yow ndax bu xawee si yow fay gaaw a sonn ndax bu xawee si yow bu xawee si yow fay gaaw a sonn su fekkee ne fay def noonu ma ne fay def noonu ci man <clears throat> maa soj tas manumaa wax ma ne la kon nañ seet nu nuñ koy digalee mu faju ci njëkk ak teraanga tax ma di la laaj loolu ndax su ma wujj nga xam nga xam naa ne su ma la ko su ma la laajee su fekkee noonu lay def si yow ma xam ne du man rek ma xam ne kon fa xam lu ko dal xoolu la dee tax moo tax ma di la ko laaj nga wax ma di ma ba pare daal di dem sa moom ne ko ne ko awe mu ne yow nangam ndeke yow li nga may wontaay yëpp ne ne suma doomi ndey nga di ma won ne ba nga seytaane wi fi ne suma xarit nga ndekete woo yow ci naafeq nga ne woon nga bugg a tasal suma sëy bile mu kumba xanaa xamu ne maa la jiitu ci sëy bile jur ci ay doom kumba kumba yow lu tax nga mel nii kumba lii lum do kumba suma nijaay moom la takkee ba tey maa ngi la jël def la suma doomi ndey xëy man jow mi naa si aadama njaay walla Hmm. léegi la ma suma nijaay léegi laa ko kool léegi la ma ko doon wax <coughs> mu ca samp ma mu ngi ca kër ga mu ngi ca kër ga maçon yaa ngay samp suma nijaay fa man suma baaf dee bi suba la suma nijaay fa ma ne xam fa may jëndal téléphone bu xees fi mu ne dootuma ko jëndalati ne xóor na ma ne dootuma ko jëndalati ne ne ne na mere ba muy wax ak man xóor na ma ne ma man tey bu ñëwee ñu suuli ma su ma nijaay wax na ma ne bu ma la soo bu ko kool ne di di di di gën a yokk saytaane bi wax na ma ne sax bu ma la kool de yow kay fi mu ne musiba nga bëgg moo tax nga ne nga koy kool moom wax na ma ne sax bu ma la kool de te xóor na ma ne danga ko wax ne ko kool naa la ndax xay wi gën a gudd fi ne waaye kumba man li ma daj ci suma loxo nijaay balaa mu laa takk coono bi ma daj ci góor gi balaa moo xam lu mu takkee ñaareel kumba kumba nga ñëw ci sëy bi ba nga ñëwee tey juróomi ati yàlla xaw ma jàmm kumba moo kumba lii lum da kumba lu ma la def kumba lii lum da kumba ñëw ñemee nga xàq de kumba kumba yow laaju ma la dara lu dul suma nijaay ndax bu xëyee si yow fay gaaw a sonn ndax taay yépp noonu lay def ci man su fekkee ne foo koy def si yow ñu ñu ñu digal ci njëkk teraanga nu yow nga ma ne suma nijaay fay gaaw a sonn ba pare ba ma ne la kon xam nu ñuy def ba ba digal ko nga nga ne ma nañ ko xalaat bu subaa dinaa la kool ñu ñu danaa xalaat bu subaa ma koole ma ne may ma ni danaa xalaataale ñu bu subaa ba ma ñu seet nañu lu ñuy d'accord xalaat bu ñuy d'accord waxee ko ko noonu nga nga nga dem jaar suma gannaaw ne ko amee mu ne yow yow ngay gaaw a sonn boo neexee ca moom kon kay yow li mën a wax ne gaaw a sonn mi foog nga cee sonn ngay fen yow gaa sonn mi nga cee sonn li nga ma wax ngay ngay fen boo ci sonnoon danga dem di ma jaxasee moom fi mu ne bu bëggoon a faju sax du fajooti xëy man jommi naa ci àddina woon la man de fi ne may génn ci sëy bi rek xabal la ko kumba ndax man yenn yi sëy jaralul ma ko man ba ma duggee ci sëy bi jaamu yàlla tax ma dugg si ak bëgg bëgg góor gii su ma nijaay waaye duutoon ne ma ma cee dugg ngir leen kii ne su ma nijaay fa may takkal seet bokkale du ma indil jàmm ñuy xuloo guddee bëccëg fi mu ne yow jëlal sëy bi kumba ma xamal la jëlal sëy bi waaye xamal ne suma xàq dana la jot digg bëccëg ndara kàmm kumba ndax ne bu ma tasee sëy bi suma doom yi xaw ma nu ma leen di def déedéet man kay bu ma ne déet bul wax loolu lu may wax man kay bu ma ne amee ngaa baax bu ma ne nga waxee woo ko ko noonu kon noo ko ko doon waxee lu tax nga tudd ma si doo ko wax su ma nijaay ngay gaaw a daanu ngay fañ so maa sonn ma nijaay ngay gaaw a ñëw maa sonn suma nijaay lu xew waxee ko si njëkk teraanga waa loo ma ci tuddee yow loo ma ci tuddee suma nijaay fi ne dana mer-mer moo xam ne la mer fi ne may wax ak moom naa fekkata nga tudd ma si man ngaa wax sa soxla sa doo ci tudd yaa ko tay ngaa bonta bëgguma jaxasee su ma nijaay moo tax nga def ko waaye naa génn xabal la sëy kumba nga xam jaam te xamal ne bu ma génnee xabal la koy su ma nijaay fay takkaa beneen ñaareel nga xam nag su boobaa li may def yëpp boo xamee ñaareel boo xam ne fa koy fay nga xam ndax neex na si xol man maa ngi dem anyway fi mu ne wax na ne bu ma la bu ma la naa la fi ne wax ko loolu ne ko ami na ma su ko defee nag xay wi gën a gën a gudd ma génn xabal la kumba salaam man maa ngay dem musuma gis li xëy man xamu ma def yàlla wala laa ilaha illallah muhammadu rasul